bismillahi rahmaani rahim auzu billahi min asheytaani rajim laa xawla wala xawata illa billahi alil azim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu asalaamaaleykum njabootu axlulaahi waa kër Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi sant yàlla di julli si Seydina Limaamu Seydi awwaliina Seydi aaxiriina rëyisu ruwasaawul kurama di ñaan suñu boroom yàlla defal ñu jàmm xéewal ak mucc def jàmm ci kër Seydina Limaamu alayhi salaatu wassalaam yàggal fi suñu xalifa Seydina Mouhamadou Mokhtar ibnu Seydina Mandione saayibul kiram mu yàgg fi loolu te am wér te suñu borom defal ko jàmm def jàmm si kër Baye Laye alayhi salaatu wa ñuy jaare waa axlu laay yëpp di jaare njabootu Baye Laye alayhi salaatu wa salaam yëpp di am kontante ak mbégte di recevoir fii ci Médina rajo Urum bi. ki nga xamante ni moom moo yanu yan bi man tuddee ko rek excellence El Hadji Syllou balaay moom mi nga xamante ni si wàllu communication si wàllu euh, liggéeyal Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam mi ngi koy def ci boor bi mu ko mënee te boor bi ko ko yàlla jagle itam ñu ngi ñaan yàlla oyofal yan boobu ba lii mu sumb si bismillaahi rahmaani rahim yàlla mottalil ko ci alhamdulillahi rabbil alamin fës yéene nag waxtaan ci mbirum zikr zikru démb ak zikru tey comme que nag lañu am lu ñu fekkee démb muy lu ndaw a ndaw a ndaw yaakaar naa ni fa mag ñett yamoon seen tànk ci zikr maanaam eer yi fañ ko doon yamale ñun foofu la ñu fas yéene allah si kàntanu yàlla ak ndimbalu Chérif Abdoulaye mi nga xamante ni moo la woon lu ñu bindati nañ ko way loo bindati rek wayal loolu ndigal boobu lañu joxol te ba mu ñuy jox ndigal boobu itam amoon na ay seede seede seede yi am na ko fi ne ki may wax nag moom xam naa ne xam na boppam te itam euh, dañ koy ñaanal jàmm ak xéwal ak mucc rek muy général Baye Ndiine Thiaw ibnu Seydina El Hadji Abdoulaye Thiaw ibnu Seydina Isaa Ruholaayi ibnu Seydina Imaamalaayi imaamul kullu imaamul aramayni ndax zikir yi dafa am fu ko mag ña yemale woon te fa mag ña yemale woon itam ñun foofu lañu fas yéene rallongé ko pour ñu nekk toujours si valeurs u zikr pur laayal jërë ngeen jëf lay lay la i la law lay i la law la la la la la la ila law la ila la la ila law la law ala alaw rabbi mamaduna be lay lay lay lay allahu allahu allahu rabbi mumaduna be lay lay lay lay lay alasani seni kin wóolu naxu noo jaarama bay lay lay lay lay lay yàlla seen ak seeni ki nu wóolu na xunoo jarama bay lay lay lay lay lay yàlla saani seeni ki nu wóolu na xunoo jarama bay lay

lay lay lay lay yónneen nga yónneen nga bay lay ya rasulullah lay lay muhammad alayhi salaamu lay ya rasulullah lay lay muhammad alayhi salaamu laay mooy maadiwu laay muhammadu yaa rasulu laay laay laay laa laa muhammad alayhi salaamu laay mooy maadiwu lay lay la la allahumma salli ala sayyidina muhammadu maam bay lay alay salaamu lay lay lay la la allahumma salli ala sayyidina muhammadu maam bay lay alay salaamu lay lay lay lay lay allahumma salli seydina muhammadu maam lay alay salaamu lay lay lay lay lay allahumma salli ala seydina muhammadin wasalim mbokk yi lii leen doon doon baaxe si air yi nga xamante ni moom la ko mag ña tëddee woon tëggee woon si gaam bi nga xamante ni moom lañu ko waxee lañ sa dolli nag mooy yonneen nga yonneen nga bàyyi laay yonneen nga muhammadu yaa rasulullahi muhammad alayhi salaamu laay mooy mahdiyu laay muhammadu yaa rasulullahi allahumma salli ala seydina muhammadu maam bàyyi laay alayhi salaamu laay loolu la leen di baaxee doon di baaxee ba beneen yoon te noonu lañ ko fas yéene jàppee si faram-fàcce leer yi mag ña ak gaam bi ñu ko indeewoon lañ sa yokk ak la nga xamante ni fa ñu yemoon ak lañ sa yokk allahumma salli ala seydina muhammad wa sallim